ñaan jàmm ci réew mi ak réewi kóor jaajëfal alxaaji sëñ Mbàkke si la mi nekkoon jataay bi ñaanal ko tawfiix sutura ak teraanga ak poche def dara niñ koy baaxul def fajaru àjjuma mooy ànd ak yoon ci Ar-Risaala suñu bindu tey mi ngi jëm ci salaatu tatawwa salaatu at tatawwa muy jullik coobarewu walla jullik naafila coobarewu walla la atatawu mooy julli yi nga xam ne bokkut ak julli juróom julli juróom yi farata la yeneen julli yi nga xam ne duñu julli juróom ñoom duñu farata waaye julli yooyu mënees na caa jël luñ defare julli farata yi ndax secours lay doon ci oto moo tax boo gisee jàkk ji ku koy ku koy capp-cappal mu ngi mel ni ku jóge fii jëm cilmaxa maxambaakol secours bi amul ngelaw mun na naa dem bu Louga dem ba Louga ne ah naa far jàll cilmaxa wala boog euh, naa dem ba ngaay laa bëgg wax bëgg faa jóge ne la ah naa far àgg cil maxa secours ñi xam oto ñépp duñ ko sàggane ak kale bi koy dindi ak kirij bi <laughs> alayhi salaam mi yàlla yónni woon te lu ma mu jàngal nu ko yàlla na yàlla fayal moo nu jàngal julli yooyu waaw eh, kon julli gi mu di jullik coobarewu ay julli yu bare la loolu tax na nun ñépp ñu war cee mën a taxaw abu hurairata radiallahu anhu nee na yonent ba alayhi salaam wax na ne eh, li nga xam ne moom lañuy njëkk peese bu ëllëgee yowmal xiyaamati min amalihim assala ëllëg bu doom aadama yépp dekkee nu war a seet liñ fi nekke woon ayyukum asanu amala ñu war a seet liñ fi nekke woon ya ca jag ya ca jagadi yépp nu tàmbali di ko seet waaw seet sunu koor yi sarax yi ñu daan sarax ak màkk yi ñu daan def lépp ñu seet ko sunu diggante ak sunuy bokk waaw sunu diggante ak liñ amoon sunu diggante ak sunuy soxna diggante soxna yi ak jëkkër yi diggante nit ñi ak seeni dëkkandoo diggante ñuy liggéey ak fañ doon liggéey gis lépp ñu seet ko waaw ñu ngi ko teg ci barab ci misaal bind ca tur ya bind ca tur yi ñi ko moom waaye bu ñu bu ñu ñëwee ku ñëw li ñuy njëkk a seet mooy julli gi waaw li ñuy njëkk a seet mooy julli gi mu ne yaqul rabbuna li malaikatihi wa huwa a'lam unzuru fi salati abdi hmm? atammaha am naqasaha comme malaaka yi ñoo yor liggéey ba ñoom ñëpp ñu ngi takk seeni badge malaaka yi ñoom ñëpp ñu ngi takk seeni badge liggéey bi mooy ku moom ku moom ku moom bagage be ñu ne nogay nogay doomi moodu moodu ami <laughs> ak yaa ma jéey waaw moom moom bagage bee ñu ne waaw ñu ne ay ku moom bee ñu ne diw ku ñu ne diw ñu teg suñ yëpp yépp ndeysaan nii nga xam ne moom lañu def ci aéroport yi nu ko raw la malaaka yi def aéroport booy jàll lu nekk sa wëlis bi dana leen wax ne wëlis wi nàngam a ci wëlis wi nàngam ci bërki démb bi ñuy jógee réewum France di ñibbisi waaw tocc bi ne ci biir saag bi ma yor sax machine ba ne lan ab tocc ngi ci biir wala boog daraañ ci biir saag bi waaw ñu ubbi saag bi ne ma lii lum doon ma ne ah lii de dama ci duur sama loxo yi ak xarkana beeg tànk yi tànk yi ma làkk leen ko ci français dun dama leen ko làkk nag ci français waaw <laughs> waaye français ya xam nga sunum réew da ni ma yàlla baal boo fi làkkee tubaab def fóot adduna tukki waaye ci tubaab yi moom bu la nee bu la neexee def fóot te adduna du tukki xaw ma nag lu tax ñi nangul ñu ko te ñee nangulul ñu ko ba demee ci ñoom ndey borso ak amintam bu ba ñu nekk Amérique boo boo boo làkkee anglais te jum ca ñu baal la ko waaye fii ci Sénégal boo làkkee anglais jum duñ la ko baal seet man xaw ma lu mu demee te kat ku fi làkk wolof jum ñu baal la ko te ni nu déggadee tubaab nun la ñu baree bari déggadee wolof wax la ko tey te nun noo ngi leen koy baal man xaw ma ana sama ñaari gaay yi tontoo ak si la muñal xaw ma fu ñu nekk waaye tabarkalla <laughs> yal na yàlla sàmm leen tonton aad ak si la muñal alaaji tonton aad ndax tonton aad gis naa ko mag si la nag wóoruma ba xam waaye daal ñooña lañ daan def bis bu Ali FM amee émission spéciale lañuy am ndax ñooñu li ñu doon def mën nañ ko te jekkoon na te tabarkal euh, boo làkkee tubaab ca tubaab ya ñu baal la ko nga làkk anglais ca anglais ya ñu baal la ko nga làkk almaa ca almaa yi fu def faute ñu baal la ko Sénégal boo fi làkkee tubaab def boo fi làkkee anglais def faute duñ la ko baal te ñu ngi baale kiy làkk tub kiy làkk wolof di ca def faute walla ki làkk pulaar man musumaa gis loolu ala kulli xaal jaam bi sunu borom ne malaaka yi commencé leen ci ak julleem ndax julli gi mat na am dafa manqué te yàlla gën a xam kat li xew ñépp a ngi seetaan waaw ñu daal jël julli nogay gi teg ko ci tapis bi mu jaar ci ecran bi ah su fekkee jullit julli nogay gi na sunu borom na malaaka yi li ci des jër seet allahu akbar allahu akbar mer tàpp si bi bu ñu gisee ne julli gi mat na rek sunu boroom joxe garanti ne leen li ci des lépp mu mut ta seet bi ñu daan ànd ak bàyyi alaaji màggat jéy di jaayi gerte bu ñu ko bayee ba noppi booba taaraar moo xewoon booba taaraar moo xewoon dañuy tànn ci sa ci sa gerte gi benn saako mbaa ñetti saako taaraar ko bu ñetti saako yi setee dañ naan kon saako yëpp a set bu ñetti saako yi xajamee ñu ne kon saako yëpp a xajam ndax xam nga ne juróomi téeméeri saako neexuta taaraar ay santion lañ ci loolu de war na jàngal ñu bari lu bari hmm waaw waaw ah, su fekkee julli ga am na yu manqué aleyhi salaam mooy jàngale mu ne sunu borom mu ne seet leen ay naafilaam maanaam gis nañ ne am na tisbaar joo xam ne dafa manqué rukkoo maanaam rukkoo ba nam ko defe woon baaxul jënd tisbaar le 8 janvier 2002 julli woon nga fa tisbaar joo xam ne deuxième rakka deuxième rakka ba rukkoo ba jagut borom bi ne dem leen ci ay naafilaam bu ngeen ca gisee naafila gu rukkoo ba jag ngeen demonte ko ci julli googa monteel ma ko ci julli gii allahu akbar cay ya rabbi lakal hamdu mer tàppasi bi déggal li suñu boroom wax daf ne malaaka yi xoolal leen mu jullik sama jàmbi ndax julli yi mat na wala julli yi daa manqué waaw su julli gi matee ñu ne li ci des jarite seet su julli gi matut xanaa manoon manoon na ne li ci des jarite seet ndax dara matu ci déedéet mu ne unsuru hal li abdi min tatawwa dem leen ci moom ginnaaw julli dat sàngam tusbaar sàngam rukkoo ba manqué woon na dem leen ci ay julli naafilaam waaw ñu ñëw ci julli naafilaam ne ko ah julli gi naafila kay moom rukkoo yu bari baax na ci de mu ne jël leen ci benn ngeen démonte ko monteel ma ko ci tusbaaram ju jëgut ji ci rukkoo bii allahu akbar war na noo góorgóorlu mu ne fa in kaana lahu tatawwu qaala atimmu li abdi faridatahu min tatawwuihi waaw mu ngoog loolu laa doon wax sànq mottali leen ma mottali leen sama jàmm bi jullik coobare moom googi jël leen rukkoo bu jag ba indil ko ko ci rukkoo bu jagut bii te nekk farata ndekete kon julli naafile yi du dañ koy def rek taf-taf daal di sànni ndeket day am njariñ boo ëllëgee moo nu secours ñoo yem ci oto moo pneu secours ñoo yem ci oto pneu secours moom boo boo boo crevé rek xam ne pneu secours ëpp naa ñàkk am waaw ëpp naa ñàkk am mbokk yi suma tuqasul amala ala dalika borom bi daal di ne kon julli gi jàkk julli gi defar nañ ko moog malaaka yi defar nañ ko ba julli gi jag na léegi nag ñu nekkoon kon léppam jag na ay wàllu yàlla bëri yërmande sa daal di waaj sa lépp jag na xoolatuma dara julli gi jag na abu daawud moo nettul addis boobu moo ngi ci mbokk yi maa ngi ci arisala ni ñu koy defee fajaru àjj mu ko jot ci waxtu wi maa ngi ci atatawo muy salaatun xayru waajiba wal muraadu biha as sunna awi nafla waaw naafila wala sunna abu umaama nee na alayhi salaatu wasalaam nee na maa addana allahu li abdin fi shay afdal min rakaatayni yusallihima mu ne ndigal li yàlla jox ab jaam mu def ay ñaari rakka foofa rek la ko digle waaw foofa rek la ko digle hmm? tabarkàlla uh, eh, mu ne te itam bokk na ci ak mbaax moo di addis yooyu la bokk julli yooyu day nekk am mbaar tiim aji julli ji li feek mën nga ci julli ga maanaam sunu borom euh, tabaaraka wa ak mbaax ko ngëneel day tiim aji julli ji di ruus ci moom maa daama fi salaatihi li feek ma nga ca naafilaam ya al hadis rawaahu ahmad wa tirmisi waaw asuyóoti yi nee na wér na al imaamu malik imaamu daarul hijra nee na balaxani anna nabiyya qaal wastaqimu walan tuxsu wamil walamu anna xayra amalikum assalaa waaw aw kama xaala nee na alayhi salaatu salaam daa wax ne jub leen istaqimu jub leen waaw Euh, te ngeen xam tey tey natt li ngeen di def ak a denc te ngeen xam ne seen jëf yépp jullee ci gën anna xayra amalikum assalaa li ngeen di def yépp ci jaamu yàlla jullee ci gën hmm? waaw waaw euh, walan yuxaafisa ala alwudu illa mumin mu ne ko gëm yàlla mooy taqoo njàpp ku gëm yàlla mooy taqoo njàpp waaw képp ko gis muy taqoo njàpp gëm na yàlla rawahu muslim waaw eh, ñu jële ci malik al aslami walla rabia ibnu malik al aslami mu ne sallallahu alayhi wa sallam dafa dañ koo laajoon asaluka murafaqataka fil janna waaw awa xayra salik xaala naam aji daa ñëw ci yonent bi alayhi salaatu salaam ci misaal defal ko lu sedd xolam mu ne ko loo bëgg ma defal la ko hmm? waaw waaw daf ko defal lu sedd xolam alayhi salaatu salaam ne ko loo bëgg ma defal la ko laajal waxal rek loo bëgg ma defal la ko mu ne ko xanaa lonkoog yow loxo ca aljanna ja wala boog ànd ak yow ca aljanna ja yontu mu ne ko ah doo seet leneen mu ne ko loolu rek loolu rek man daal su ma sañoon ànd ak yow dëkk ca aljanna ja doo seet leneen mu ne ko loolu de loolu rek laa am ci bëgg-bëgg alayhi salaam wax ko la def ne ko fa nii ala nafsika bi kasrati sujud waaw dimbale ma ci sa bopp dimbale ma ci sa jëmm ji nu ma la ciy dimbalee mu ne ko na say na say julli bari na say julli bari fa ayni ala nafsika bi kasrati sujud na say julli bari mbokk yi nan naa ko dégg man mii di ko wax dégg leen ko yéen ñi koy dégg waa ji nee dafa bëgg bu yomal xiyaame fu yonent bi dugg mu dugg fa yonent bi ne ko dimbalee ma julli waaw tabarkàlla waxi sëñ Muntaxa jam waxoon ca cérémonie officielle ba ndeysaan nañ dimbale sëriñ bi ci sunu bopp mu néew mbokk yi maa ngi ci risaala maa ngi ci julli coobarewu maa ngi ci tomb mashruiyatuhu ma li ko yoonal mu ñëw ci ñaarlu tomb bi istihbaabu salaatihi fil bayt sopp nañu julli coobarewu ñu di ko def ca kër ya ah waaw waaw sopp nañ ko ki sëlmal farata na dem këram farata ji ca jàkka ja sunna si ca ga waaw farata ji ca jàkka ja sunna si ca ga danaa ci jéem a indi ñeenti addis ba ca jiitu imaam ahmad moo ko nettali ak muslim ñu jële ko ci jaabir mu ne yonent ba sallallahu alayhi wa sallam moo daan wax ne isaa salla ahadukum salaa fi masjidihi fal yajcal li beytihi nasiban min salaatihi fa inna azza wa jal ja xayra yonent salaam ci addis bi jaabir bi nee na bu ngeen julleetee ci jàkka ji bu ngeen julleetee ci jàkk ji jullik farata tisbaar mbaa tàkkusaan mbaa timis mbaa gee mbaa suba na ngeen sidd fal yaj'al li baytihi nasiba nangeen sedd seen kër yi ci jull gi na ngeen sidd seen kër yi ci jull gi ndax julli nit di def ci këram gàllaaj la julli gi nit di julli ci këram gàllaaj la Hmm? waaw waaw fa inna allah azza wa jal jaailun fi baytihi min salaatihi xayra kon julli googu nga julli sa kër gàllaaj la ci kër gi nga sëlmal tisbaar rek dem ca kër ga sëlmal takkusaan rek dem ca kër ga sëlmal timis rek dem ca kër ga rek tabaarkalla ak saa boo sëlmal dem ca kër ga julli yi ngay julli ci kër gi te muy julli naafil yooyu ah, tabarkalla gàllaaj la xam nga noonu da ngay dem kër nogay am xar mu weex lay bàyyi ci kër gi nee na xarum benn mel bi mooy gàllaaju kër gi mu ne ko baax na baax na rek nogay bàyyi ci kër gi xar mu weex ni mooy gàllaaj ji wala ganaar gu xonq ni ganaar gi mooy gàllaaj gi waaw mos naa ci fekk kër goo xam ne gi ndeysaan xar ma daa faatu waa kër gi di jooy naan fun ñu jëm ma ne muy mère tàpp ti moom indil ñu lu gën loolu def nañu dee leen julli ci kër gi doy na gàllaaj sëkk waaw allahu akbar doy na gàllaaj sëkk waaye noonu léeg-léeg <laughs> eh, wut ab béjjën sol ci ay yëf takk ci bunt kër gi léeg-léeg ak kees lañ koy def daaj kees ga fab yooyu def ci biir hmm. yàlla ne waaw man léegi lan ngeen may def loo bu fekkee da ngeen a jàpp ne joxur joxur yi eh, waaw eh, wékk naagu yi nangam nangam bu ngeen defee ni yooyu moo leen di sàmm man lu ngeen may def loo waaw te wallaahu yaasimuka mina naas man sàmm leen day ah, ndeysaan seetetetet doy na waar kullu nafsin lamma alayha bi ci sopp guñ sopp jullee sa kër ñu ngi ko jël ci ahmad mu jële ko ci omar ibnu xataab mu ne yonente ba def ne salaatu rajuli fii baytihi tatawwaan nuurun fa man shaa nawwara baytahu nee na imaam ahmad nekk li na ci omar ibnu xataab mu ne yonente ba nena na jullik nit wala jullik jullit ca këram jullik coobarewu ak leer la mu ne ku mu neex nag leeral sa kër ku bëgg sa kër leer dee fa julli <laughs> dee fa julli ginnaaw julli farata yi julli farata yi ca jàkk ja julli coobarewu yi ca kër ga ñetteel ba ñu ngi jële ci abdullah ibnu omar mu ne yonente ba alayhi salaatu salaam def ne ijcalu min salaatikum fi buyutikum wala tattaxisuha qubura mu ne sedd leen seen kër yi ci seen julli yi bu leen jàppe seen jul seen seen kër yi ay xabru ay xabru boroom xam-xam yi nag foofu lañu ñu ci ñenn ñi dañ ne ginnaaw def ne laa te taxisuwaa xubóoraa kon ay xabru kenn du fa julli ñenn ñe ne déedéet dégg wuñ ko noonu laa te taxisuwaa xubóoraa ahlul xoboor yi dañ dul julli ñoom ñu nga tëdd rek ñaari wax mi bu ci nekk ma nga ca tabarakallahu te mbokk yàlla layal nañu ko ma jeexal addis ci zeyd ibnu thabit moo ne yonente ba nee na salaatul mar'i fi baytihi afdalu min salaatihi fi masjidi haada illa al maktuba hmm? waaw mu ne jullee jullee sa ak naafila moo gën jullee naafila ga ci sama jàkk ji waaw xanaa mu nekk gu farat mbokk yi teg leen seen baaram foofu bu ñu ko dug dégloo benn yoon ñaar yoon ñetti yoon incha allah dil siwaat ci li nga xam ne moo ci tege ngi jéggalu ñëpp soxna yeeg sëriñ si ak seen fa rek ci jotaay bi ndax suñu mbokk yi xëy ci xibaar yi ñu ne taxaw yor seen këyit bëgg leen a filim fàncal xibaar yi ci tubaab filim fàncal ko ci wolof ñaanal ñu yàlla ñoom ak yéen ak suñu technicien bii ak suñu àndandoo bii di C3S yàlla yàlla defar seeni mbir defar suñuy mbir te def ci suñuy poos dara in uridu illa al islaaha ma tataatu wa ma tawfiqi illa billah wasalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakaatu